cortège su Ousmane Sonko bi accident bi ma ngi ko defee ñetti kilomètres avant ngay agsi fi nga xam ne mooy Nioro kenn ki di Moussa Camara ci sécurité Ousmane Sonko la bokk ak Amandaw kookee tamit ci sécurité Ousmane Sonko la bokk ak Pape Ibrahima Fall mi nga xam ne moo nekkoon caméra bu jot na TV yéen a kaay gi xëy dañu xibaar nan ñu njiitu réew mi di président Macky moom nag daan nay jaale ñi xam ne ñooy waa parti Pastef ak ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seeni mbokk ci l'accident élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci commune bu Ziguinchor yéenekaay gi de Le Quotidien nee na week-end bii nga xam ne moom la ñu génn tàng na jër ci Ousmane Sonko yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na Mame Boye Diaw ak Mame Mbaye Niang ñoom nag nee nañu danañu dem ci élection locale yi ci nii wala ci naa maanaam ba ñu ñu ci dara yéenekaay gi nee na Sidiki Kaba ginnaaw bi ñu ko bañee tànn ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ay farandoom ñoom nag ñoo ngi woote li nga xam ne mooy vote sanction ca diwaanu Tambacounda yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na ci biir Benno Bokk Yaakaar liste parallèle yi bëri na loola waaye nag liste parallèle yooyu est-ce que du Macky Sall moo nekk ci ginnaawa yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdou Khafor Touré daan wax ne Ousmane Sonko ak Abdoulaye Baldé bu ñu àndee loole nag dafay firndeel ne yàgg nañoo nag jokkoo ci seen biir choix bi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci Abdoulaye Diouf Sarr ci diwaanu Ndakaaru Abdou Khafor Touré nee na loole lu baax la yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na élection locale yi ak élection législative 2022 loolee nag mooy nattukaayu Macky Sall ci élection présidentielle 2024 maanaam test présidentiel yéen kaay gi di Libération nee na week-end bi gudd na loola yeewi askan wi Barthélémy Dias la ñu samp ci diwaanu Ndakaaru yéen kaay gi de la Tribune ak l'info nee na rébellion bi bëri na lool ci biir Benno Bokk Yaakaar bëri ay liste parallèle yéen kaay gi de enquête nee na élection yi bëri si ay coalition bokk ci coalition yooyu maanaam ànduñu ci yéen kaay gi de Les Échos nee bi bëri na ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru ci Fatick ca Mbacké sa Sindia ca Parcelles Assainies ak gox yu bare bari di réew mi quotidien nee na investiture yi daal gis nañ bëri na xam ne mer nañu ba maara détaillé ci coalition yu bare bari Abdoulaye Wilane mi nga xam ne dañ ko yëbbu woon ci président conseil départemental bu Kaffrine daal na koy gedd Touba ñi nga xamante ni ñoo fa nekk bokk ci APR dañoo mer ba maara détaillé yéen kaay gi gi de Les Échos nee na coalition Yewwi Askan a mag a mag moo am ci diwaanu Thiès ak ci diwaanu Saint-Louis yéen kaay gi nee na Yewwi Askan Babacar Diop la ñu fa samp sa diwaanu Saint-Louis Abba Mbaye yéen kaay gi di L'As nee na Mariama Sarr dañu ko écarté ca diwaanu Kaolack Libération yéen kaay nee na moo taxit ñi nga xam ne ñooy far ndoy Mariama Sarr yi ñoom ti mer nañu ba maara de taali ca Kaolack dañoo wàccoon ci mbedd mi yéen kaay gi nag nee na di Dakar Times sëy bi doon dox diggante Mariama Sarr ak Macky Sall sëy ba tas na waaye nag sëy bi doon dox tamit diggante Barthélémy Dias ak Soham Wardini pëccoxoo daan na say am li am ci yéen kaay gi di wu njëkk daan na koy centre boo xam ne cancer lay faj sa diwaanu jam ñaajo yéen a kaay gi de la Soleil nee na ñi nga xam ne nag ñoo amee maladie bi di chimiothérapie ñooñu nag dañ leen di faj te duñu fay dara yéen a kaay gi de la Témoin xëy nag ñu xibaar naan ñu usines yi nga xam ne ñooy defar farine danañu ko tëj lu tolloo si ñetti fana yéen a kaay gi de la Quotidien neen li ko waral ñi nga xam ne ñoo moom seeni usine di defar farine nee na nag mënatuñu daal maanaam di defar farine ba pare di jaay di perte loolee munta nekk yéen a kaay gi de enquête xëy dañu xibaar naan ñu ca diwaanu Casamance amul ay ci lu jëm ci wàllum santé Casamance as ak la muy rëy lépp benn ophtalmologue rek la maanaam kenn koo xamante ni daal maanaam xelam màcc na jëm ci wàllum bët ci biir Casamance gi yëpp yéen kaay gi dee sat xëy ci Ligue des champions tey ji la quatrième journée bi Bayern ak Juventus ñoo nga dox wuti huitième de finale ya yéen kaay gi di sunu lamb nee na face to face Tapha Tine Boy Niang numéro deux jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre yéen kaay gi nee na les yeux dans les yeux ñu xoolante ci biiri bët Société nationale d'électricité bu Sénégal leen doon may seen revue de